acca Saturne kon mbokk yi ah Saturne ba kañ ba dimanche incha allahu rabbi du mën a ñàkk drapeau Mansour Ba encore une fois olof nee na ku fóotal mbët rot ci bar yaa ngi dégg dimanche jamay kee moo woote gis ngeen bàyyi ma ñoon seetaan ngeen ko mook parrain bi waaye gis ngeen tamit bébé jën adversaire am ñëw na maanaam kii day dem kii ñëw parce que dañoo bëgg rek mbir yi jaar ci yoon parce que dañoo bëgg nag sàmm mbir mi ba bés ba incha allahu rabbi mais dafa am loo s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. il faut que nous fassions fale c'est impossible voilà nañ ci parce que ñu ne farata la ngi nañ pour ëpp ko day Papa so Modou Lo laale naa ak moom Gris Bordeaux amut mbër mu bàyyi ma ñoon bërelul Sénégal di mbër mu mag a mag a mag a mag a mag mii xam na ne ki muy bëreel li tax mu nangu koo jël moom mii xam na ne tey Bébé jën daan na bàyyi ma ñoon xibaar la waaye bàyyi ma ñoon daan na Bébé Diène du xibaar mbaa dégg li ma wax bu baax moo tax ma ne kon lamb ji lamb ju mag la parce que li tax ma wax loolu mooy yàgg gu baay bi ñoon yàgg ci lam ak champion gu mu doon kii nag nekk xale boo xam ne maag Lamine yaakaar naa yuuxulu noonu ba looxu sama yuuxu ya Iba Maar dootul am mu ko rëg-rëg kër damaa waaru mais li jar a wax nag nga sànq wax mais dafa am loo xam ne dafa dafa mel ni desoon naa am aal mais dafa waaw dafay am yoo xam ne su ko defee bàyyi laat noonu na géwél amul mais ku la defal lu baax nga wax ko parce que Mansour jeune la xam nga Lamine am na loo c'est pas forcé Jamaïcain mën na ko tuddee làmbam mu ñëw en tant que parrain yëkkati la mu am jox ko Jamaïcain ñëw këram toog ànd ak délégation am seetaan làmb ja mu jeex mu ñibbisi mais nag bu fekkente ne dafa yëkkati un million de francs deux millions di moins mbër mu ci ne mu jox la un million ne la nga jënde ko billet ça veut dire que kon Mansour ba moomu nag loolu ku ko def dañ koy wax kon Mansour yàlla na la yàlla kàttanal bàyyi la ak say jur ak say rakk ak sa soxna ak sa njaboot ak sa conseil yii ak sa grand frère bi papa Sow. non dina yóbbu de waa dina yóbbu juróomi bolokam. yaa ngi dégg loolu di valeur un million de francs CFA kon bébé jën jàpp leen ne Mansour mi defal na leen lu mel noonu te defe naa nag nit ki moom warulaa gën a bu gore kon dimaas la fa war a am mooy ngeen bëre ba nit ñi xam ne bëre ngeen ngeen xeex ba mu saf jël bu rëy am ñun nag xamul fu muy ñibbi. su sunu dañuy wax rek ñun waaye daal man Mansour moom def na affaire doo ci mën a dégg parce que nag des fois sama saar yi ma ngeen tuddee lam waaye xay na mooy loolu mais moom comme li may wax rek man sa damay am lu may gis ci Mansour te lool dinaa ko wax tey ah c'est le futur maire de Parcelles. waaw man loolu laa gis man waa bien sûr c'est le futur maire de Parcelles Khadim Anta Seck boobu à maanaam ginna tey tey la lan tey la onze commencé leen ko di ko siiwal. monsieur le maire de Parcelles parce que xamal lan mooy maire mooy nga jege sa aw nit parce que fii ñun Lamine ñoo dañ fiy faral di ñëw souvent jete wuñ koy fleur mais mbooloo mi ñu fi fekk bari na man ñu ma fi fekk xaw ma leen te ñu bu xéwlu jotee dañuy xéwlu ci jàmm ak dal ak yu mel ni ki noonu loolu nag man Babacar nag dama nekk jëmm joo xam ne man bokkuma ak ñuy gis mbaax di noppi man moom yàlla bindewu ma noonu dama koy wax. yaa ngi dégg noonu la demee kon bés bi yaakaar naa ne yegg si na bala maa sori rek naa dem ci Papa Sow parce que yaakaar naa mooy kilifa ak Mansour loolu la yàlla dogal waaw. waaw Bébé Diène ñu ngi leen di yor ca soo njëkkoon nuyoo comme que Bébé mi ngi doog a ñëw ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal euh, di ko ne ko bienvenue quoi ah xëy na fii li waroon wax yëpp li yëpp waxoon nañ ko waaye xanaa di waxaat rek bon bu ñuy jublu balaa ñu ñëw si Bébé Diène ñëw ci parrain bi. ndax nit bu defee teraanga faw ñu wax ko mais nag dafa nekk ci milieu boo xam ne milieu bu mu comprendre la moom dafa yàgg ci làmb yàgg ci milieu newetaan aussi xam boo nekkee newetaan football ba jël ay meilleurs joueurs def ci lu ne ci newetaan jël ay coupe jël lépp newetaan ak nga boole ak làmb da ngay xam fii mbër di toll guddi ñu toll nii bu doon newetaan la ñu joué premier tour deuxième tour day métti ci président ASC day métti si yëpp comme tey ji da xam ne ñoom Bébé Diène danoo soxla moom bu yëgatee somb bu doy noonu sax soxul ñu koy wax wala dara mais rafet na rek mu def teraanga jël noonu jël un million de francs jox leen kenn ku nekk leen jën leen ay billets ku nekk cinq blocs de billets c'est à saluer ah Bébé Diène kon nag yéen a ci des waaw mm-hmm. ah, yéen a ci des gis nga Bébé Diène il est tout beau là damaa bëgg bëri sax bu ñuy bëri di watu comme moom ndax xam nga affaire bi bul nax sa bopp ah. dama gis léegi kuy bëree da ngay jël sa sikki mi def nii def ne mais mbër bu ne xamaloo am sa jour combat da nga war a sol daal yu cher ut cuissard bu cher watu comme bébé jën nu mu watoo ni dégradé bu rafet ndax ñëpp ci la lay xool àdduna bi yëpp jour bi la mën a xool ci jour sa jour combat eh, vie nga am mënoo ko am ci yeneen yeneen bés mais affaire bi fi xewaloon xaw ma ko fi génnee sëqal fii karaw dof dof lu fii mais suñu mbër yëpp nañuy watu comme bébé jën comme lu mu def nii mais mbër yëpp mel ni moom correct gars yi gën ñoo respecté sponsor yi gën ñoo mën a ñeme waaw ndax moom ñaaw ñaaw ak yooyu taxul nga daan mbër de déedéet non nii moom nii moom bébé jën mi ko xoolee léegi moom damaa kontaan si moom wax dëgg yàlla gisee mu ñëw waal see dégradé bi def ba mu baax ah waaw ah, pël bi moom macha allah quoi pël bi macha allah di ñëwaat si combat bi rek leen xam ne bon dimanche moom lu mën a wax mooy di nga gis combat bu neex ci combat bi grand combat bi di dinañ bëree dinañ xeex moom combat bu neex lay doon moom waaw ah, ndax ko xam bébé jën xam ne lu mu am raagu ko gën booy naa la bàyyi mu ñeen moom gën ak tefes la comprendre nga xeex moom mu xeex xeex sax moo ko gënal bëre kon Bébé Diène dama yaakaar ni combat bi moom dina am bëre dina am xeex te dina bëre bëre bu neex quoi. Bébé Diène moom ku ne ko <laughs> koo teree bëre gis ma ko ci àdduna koo teree dem bëre ji gis ko ci àdduna quoi ah di leen jaajëfal rek di wax Mansour ba moom wax dëgg yàlla ah, sigil nga sigil nga sigil wax ma sigil nga mbëri mais sigil nga Jamaïcain mi tuddee la mu nga def teraanga ju mel nii après naan ko xoolal li desaat loo xamante ni jëm si bés bi ñu xool yan ñooy manquement yi. ñu jublu ci. loolu moom koo defal nit moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sedd na xol quoi. defal na ko jàmbaar production yëpp defal ko Ibrahima production yëpp defal ko presse bi yëpp. Mm. defal ko Abdou Diame sopp yëpp. waa di jaajëfal ñëpp. di wax ni dañ jox pël bi kon kàddu yi ah. Mm. Babacar kon kàddu waaw waaw waaw waaw kon li ñu naan ku fóotal mbëtt rotel bar sànq bàyyi ma doon toog na fii parrain bi toog Papa comme ni ñu toogee woon nii ñu wax ak moom mu dem dafa am nag lu fi xew comme ni nga ko waxee wax naa ko fi sànq sama biir wax nee naa leen du ministre du DC ba di muy muy def ci réew mi gisuñu DC bu koy def gisuñu ministre bu koy def alal nag dafa sax ci xol boo bëggee gis nit ku baax seede yàlla boo bëggee xam nit ku baax da koy natt ci alalam tey la preuve Bébé Diène a ngi di toog ku ci nekk yàgg nañu tuddee ay kilifa fii drapeau ci ci làmb waaye act bu mu def pour mbëri ah man de tuddee naa ministre bu nekk daraapo wala directeur wala maire wala sax ku bëgg a fal wala ku soxla réew mi ba ñu ci bëri bu làmb jegesee dañuy daw dañuy daw doo leen gis kon nag li Babacar wax loolu ndaw parcelles yëpp ñoo ko wax moom bëgg ko comme ni mu bañee drapeau waaye ñun en tant que ay jeunes yu dëkk parcelle ah dañ koy koy forcer rek. mu dañ koy forcer mu doon suñ futur maire dox suñ diggante kilifa yi. ndax nag wax dëgg yàlla kuy raam di la bokk. waaw yow yaa ma gën a dégg olof. kon loolu nekk na loo xam ne comme drapeau bi ni mu ko bañee ñu wiiri wiiri ba teg ko ci loxoom bett ko non lañ ko koy defalé inshallah rabbi loolu ñu ko koy ñaan di ko sas liggéeyam sarse nanala amu la amul jotu lamb xolal limu def barki demb su fekkone teug lamb ngir xaalis do jël budget bi nga jël def ko ci nyora ñu rapport lamb ji 3 fois man kuma ma rapportal làmb fan rek aduna bi yeb dinañ ko yëg <laughs> ah, ñu rapport lamb 3 fois télé dañ lay woon na la ñëwul wax ci nga tok jël lépp teg ko ci loxo yàlla maanaam kon kooku li muy def daf koo def ci réew mi daf koy def ngir ndaw réew mi daf koy def ngir làmb kon képp ku nekk ci làmb dañ xam ne ñun waa làmb yàlla jagleel nañu produit boo xam ne mu ngi sunu biir dafa am fu ñuy dëkkaleen jiitu làmb nag waaye am nañ produit boo xam ne wax dëgg yàlla njabootu làmb yëpp ko war a sante yàlla te njabootu njabootu làmb yëpp ñoo ko war a jàpp njabootu làmb yëpp ñoo ko war a dooleel njabootu làmb yëpp ko war a jàppale ndax xam nañ ne sagam mooy sunu sag yéen ji mu am pour làmb bis bu ko yàlla defee ñoo xam ne làmb ngi door a am ku mel ni moom. yal na ko yàlla defal jàmm sàmm ko sàmm njabootam. Babacar daal li nga wax yàlla la yàlla dégg incha allahu rabbi à part de aujourd'hui ndaw parcelles yi noonu lañ ko bëggee te noonu lañ koy doxalee incha allahu rabbi waaw. di wax nag jox kàddu gi kunkande comme sa waay ko ko tuddee ci ginnaawam. <laughs> ci ginnaawam. xaali mbay dem na waaw xaali mbay dem ngi nii day wax ne daal félicitation Mansour Ba waaw lii mooy wane ne nit nit man nga ko waxal jikkoom lu loolul jikkoom waaye bu ñëwee rek def na leen ba daal yéen njabootu làmb yëpp Mansour Ba mu ngi nii képp ku nekk ci làmb nañu xam ne am nañ produit boo xam ne ci làmb wala ñëw na gane si làmb yàgg na sax ba moo ñu ci njëkk ndax nag ku kuñ laan bot di ko yóbbu yàgg na ko wax de xam muy wax ay combat yoo xam ne waaw Babacar rek ko fi mën a nettali kon du ngaaka ci làmb intellectuel la bu nekk ci biir làmb kon nañ ko ñaanal gën ko jàppale gën ko dooleel yàlla defal ko jàmm autorités yi nekk parcelle autorités yi nekk parcelle ñu ngi koy wax li ko dalee ci PM ba ci suuf doomu parcelle la muy premier ministre Amadou baax na xam ne ku mel ni kii amul parcelle kuy def ci ndaw ñi la xaarul ci président de la république xaarul ci premier ministre xaarul ci kenn di génné ci lu mu am lu ko yalla jagleel diko dimbalé ndaw ñi tay xolul mbeur mu dëkk parcelle ak mbeur mu dëkkul parcelle képp kuy mbeur ko xamné mus nga tek fi sa tank defati ngoo nga ñaxam day dimbalé ba dimbalé mbeur yu mu xamul di defal kala yi wax naa ko fi sank di defal ñep kon yalla na ko defal jamm kàttanal ko nit nak bu fekke ni bu amee dërëm da koy bokk ak yow ñaanal ko yàlla yàlla yokk ba mu am ay milliards kon yàlla ko yàlla defal jàmm. macha allah aji si. comme yow la sa waay tudd la tudd la Kandé. defe naa a Ba moom mooy parrain bi. et puis dégg ci terrain. ne ci ay biir. may la ko muy yow ak adversaire hmm. micro baa ngoog waaw ah, Babacar di wax na ni jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba xam nga ginnaaw ma sant yàlla julli senante bi maay sant sama ñaari waajur bu baax di ñaanal yàlla sama papa fu mu nekk yàlla xam nga xaree ko àjjana ak bépp waajuru jàmbur ba fa dem di ñaanal yàlla suñu yaay ak suñu famille yëpp des fii si jàmm waaw di kontaan nag si dalal bi fii parcelle di nuyu xam nga sama grand papa Sow waaw di nuyu waaw suñu grand Mansour Ba di nuyu promoteur bi jamaïcain du nuy ñu fi nekk ñëpp ak dëgg fa ne yàlla kontaan nañ ci dalal bi bu baax a baax waa di nuy tamit waa Medina bu ma jugee waa di nuy sama grand mandal muy jéeli ak ñoom moom si waaw maa leen di nuy ñeen ñëpp ak presse bi yëpp wallahi azim billahi ah. ah? waaw nekkoon samay affaire rek ba Serigne Touba nekkoon samay affaire rek waaw. mais bala ñu ñëw ci kii bi <coughs> sa euh, adversaire bàyyi ma hmm. doon. doon te keroog waxoon nga mais nee na ñu ngi lay déglu boobu ba tey. Hmm. yaa ngi wax ki la yor a ngi wax. mooy hmm. kay ki la yor xam na ko. ndax na bëri naa ah. kon nee na moom bu lay wax. Ah. nga def. nee nag sa wax bëri na moo ko wax waxuma ko de. parce que wax bëri na. waaw ñi nga waaw te bu dimanche. waaw boo daw. waa Medina du ñu reer. waaw yàlla baax na moom moom grand la xam ma ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw di ko nuyu bu baax a baax ak njabootam waaw man làmb rek laa am waaw di xaar bis ba rek yàggatul lu ñu waroon wax yëpp wax nañ ko waaw incha allah yàggatul ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ndam bu sedd guy si barke sëñ Abdou Karim Mbacke bu ñu yaakaar. Hmm. léegi problème lii moom man moom maa koy door a gis xam nga pro parrain xam nga promoteur bi la doon jàppale. mais man moom maay door a gis parrain buy jàppale mbër xam ma jëndal la ay bloc xam ma jàppale leen xam ma te moom jeune la waaw même ba passé rek seen làmb buñ ko annulé xam ma maay génn def sorti di leen masaw parce que xam ma jeune tamit buy dimbali waa dëkk bi xam ma dimbali ay jeunesse xam ma bul xam ñaata mbër lañ tëgg mbër yooyu bul xam ñaata nit la ñuy yóbbul ay dépense xam ma ku nekk mun siy jëriñu waaw mais ñu leen di ñaanal daal jàmm ko waa barke Serigne Touba ak seen famille yëpp lépp lu ñu jublu ci làmb yàlla defal leen ko ñu am ci réussir waaw waaw di nuyu tamit suñu promoteur bu baax jamaïcain hmm, jam production ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom jeune la jàmbaar la di nuyu promoteur yëpp waaw ku ci mm. la ñaaree nag mm-hmm. dëgg la. waaw papa xam nga suñu grand la suñu lépp la. waaw moom am na lu ñu doon box ay séance de entraînement xam nga mu may mu may conseiller barke Serigne Touba te conseiller yow ba léegi muy sama bopp. waaw te maa koy jëfe moom moom jàmbaar la ko waa billaay ak doomu ndeyam. kii nu mu tudd grand Ibulaay waaw koy bëggee waaw ñu ngi koy bëggee bu baax a baax waaw billaay wallaay di leen ñaanal jàmm ak salaam parce que moom champion la waaw te ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla xam lu mu def si làmb ñu def ko si te ñun dañ koy roy wallaay azim waaw waaw di si profité tamit di nuyu sama mbokku pël Fuuta yëpp waaw ina hiwrade kala ko ɓiɗɗo pullo Fuuta woni ina hiwrade ɓe waaw mi salmini on kala ko ɓiɗɗo pullo fouta woni wa guine conakiri nan hiwrade o nan hiwrade nenon mo baaho baaho kala ko ɓiɗɗo pullo fouta woni nan hiwrade mo wa kañumate ɓe guine bisaɓe en fof nan hiwrade ɓe nande guine mi wuri kam moƴƴano na yiide torade duwa on fof mi yi billayi kañumate ɓe sande ñeeri fof nan hiwrade ɓe koto jeego mamoudou sixi avenir waaw di nuyu sama mbokk yi bu baax a baax hmm. am na solo léegi joxal man suñu parole bi daa mel mat mat mat na de nuyu nga sa mbokk yi de. waaw aca kon Mansour. waaw waaw waaw di wax rek. Mhm. comme euh, bébé Diène moo fi nekk lu woon daanaka lu ñu waroon wax yëpp wax nañ ko sànq. Mhm. di dalal. diko ko encourager bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. Mhm. moom aussi comme li wax sànq rek. mbër la champion la. ku ku mën a bëre la li ko amateur làmb di di di seedeel mooy ku am sañ-sañ la bu ñëwee bëre si day wane ful la wane jom wane wane wane lépp daal li ko war a mën a may ndam di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal adversaire am di jox ñëpp rendez-vous le 13 août allah arène national si amateur yi teel a dem euh, feesal stade bi incha allah que le meilleur gagne. jëf ji nga def macha allah Papa Sow sax am ni mu ko waaye nag lu baax dañ koy wax. li nga jàppale ñaari mbër yi te euh, maanaam promoteur bi ñëwagul déjà. non loolu moom pour man c'est dans l'ordre normal des chose rek. am na loo xam non c'est c'est dans. mu defal mbër normal des choses rek am na yoo xamante ni bon mi ngi noonu quoi su ma sañoon sax duñ koo kii ci ay kii mais bon mi ngi noonu daal ñoom dañoo toll ci bëre. soxla ñu leen jàppale. bu ñu leen mënee jàppale dañ koy def ñu et dans la plus grande euh, avec la plus grande humilité nu ma ko mën a waxee xam nga mi ngi noonu daal waaw di leen ñaanal jàmm rek. am na solo na solo kon gars yi defe naa ne te am loo bëggoon jàllale ah. waaw di nuyu tamit. waa Medina bu baax a baax. waaw parce que man aw ma seen fay. waaw waa Medina ak waa Bali yëpp maa leen di nuyu. ak ñu jàpp sama combat. ku si mel ni DG. Elas Thiam maa koy nuyu bu baax ak madame caam doomu nday Cheikh Pata maa leen di nuyu bu baax a baax seen famille ñoom ñëpp di nuyu grand Malick mbay le grand doyen ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sama grand Fada Love di nuyu sama président fan si club bi ak booy di sonn si man ñëpp ku si mel nii xam ma ñoom Matar ñoom Kalilu ñoom tubaab xam ma ñoom laay gars yi sonn si man ñëpp maa leen di nuyu di leen bëggee barke Serigne Touba. rawatina fu ma jóge muy ndënd sëñ Abdou Karim Mbacke waaw maa leen di nuyu bu baax a baax comprendre nga di nuyu waa Medina ñëpp di nuyu sama papa Abdou Salaam comprendre nga di nuyu gars yëpp waaw di wax ni tamit autorité yi combat bi ñëw na waaw nañ si jàpp bu baax a baax waaw nañ si jàpp mais xam nga nañ si jàpp bu baax baax autorité Medina yi parce que ñun buñ jógee jeunesse Medina yëpp dañuy jub waaw di félicité tamit sama boy Ibou Afia ci combat bu mu jógee xam ma ñu ngi koy ñaanal yàlla mu koy yàgg di ko féetee mu am ay ndami ndam di nuyu mbëru Medina yëpp ci mel ni ñoom Dieng xam ma ñoom Serigne Ndiaye xam ma ñoom Ada képp kuy takk ngeem bu Medina rek ñu lay di ñaanal jàmm ak salaam xam ma ak suñu waa écurie som pep Papa Kayre maa leen di nuyu bu baax baax. sax na lu ñu waroon wax yëpp wax nañ ko wallaay Azim. billaahi bu sonn barke Serigne Touba waaw ak double moteur waaw double moteur ñu ngi koy nuyu bu baax ak Boursine waaw ñoom Boursine ñoom Kewel ñoom Mbaye Guèye gi xam nga ñoom ñëpp nañ ñëw jàpp si rek xam ne lépp dina baax waa Dakar waaw mafia waa Dakar xam nga ak kii tamit clinique Serigne Saliou waaw waaw clinique Serigne Saliou moom muy si Medina xam nga tey nit ku képp ku feebar. boo amul moyen saa moom da lay jël en charge dimbali la di nuyu raxam sëriñ bu baax a baax di nuyu képp ku ma jàppale xam ak laay grand laay ri onze maa koy bëggee bu baax a baax moom woo na ma waaw laay korosa <laughs> waaw maa koy <laughs> waaw moom moom moom moom ak sama grand bi xam ma ay waay lañu waaw ay waay lañu bu baax a baax bi laa wallaay di nuyu gaa yëpp di nuyu képp ku ma jàppale si làmb ji di nuyu waa xam ma waa Suisse maa leen di nuyu bu baax grand Oumar Koli xam ma waa Salba ñoom bon waa ñoom ñëpp di nuyu waa France ku si mel ni sama per Idi Abacaan maa koy bëggee bu baax a baax ak doomu ndayoom per Bamba ak booy mbir naay fa nekk yëpp ubbil ma seen groupe xam ma di ma ketal di ma dimbali te yàlla tax barki Serigne baax maa leen di nuyu baax suñ mel ni ñoom Mbacke ñoom Simer ñoom Aline ñoom ñëpp maa leen di bëggee. di nuyu waa kër bu ma dëkkal xam ma di nuyu borom apartement yi xam ma làmb metti na. xam ma jaabante yi bëri na xam ma mais maa leen di masawu baax di nuyu gardien bi Issa. waaw di nuyu ñëpp daal billaay di nuyu ñi may ñaanal ñëpp séeréer si maa koy teg si loxo papa Doudou ñaan waaw nañ ma jàppale dimanche incha allahu borom jilaas jàppale ma ma am ndam sedd guy si kaw Baye Mandione Fall waaw Ali Mbaye day toog kër ga wallaay ah. Azim day toog kër ga waaw Ali day toog kër ga kuy ñëw waaw bébé bi mooy ñëw waaw sidaati mooy ñëw barke Serigne Touba waaw xam nga moom ndeysaan mag waaw ba am barke la rek loolu koy mën a wax rek ba rek incha <laughs> yàlla baax na waa di nuyu ñëpp nag di nuyu ñëpp billaay bu ñu limee dañuy jum wallaay mais maay nuyu ñëpp wallaay asim billaay wallaay ah. kon gars nag lii moom jàllale leen ah, parce que nag kan la voilà billet yi voilà parce que lii faw ñu wax ko bébé jox jox génneel billet yi jamaïcain génneel billet génne ko jam il faut nga génn ko bu ko laxas si andi andi benen andi jam jox ma bloc bi yi jam bi lu ko dal foo ñaar voilà ñatt voilà kon li ay bloc bi bébé jënd hmm? déjà loolu la ay ngi dégg des na len ñaar bloc mu ngi si auto oto bi boko bolé muy 1 million de francs CFA ci xaliss moy 5 bloc yi ku ne am nga ko yow ak Baye Mandione kon yaakaar naa Mansour dimbali na leen jàpp na ci bés bi ah ci lii waaw bu la di wax xam nga waa Medina nañ ñaanal grand Mansour ba bu baax a baax ak promoteur bi barki borom Touba ndax lii yombul ñu tuddee la làmb xam nga nga dimbali mbër yi te ñun xam nga lii la ñu doon jooy suñu bu booy xam nga na ñëpp ñëw waaw bu yaay fi xam nga grand bi may nañu ay billets. waaw nañ ko ñaanal jàmm nag waaw jóge naa ba mbir naa ñëw fii nag jël samay bolok waaw di leen ñaanal jàmm ak salaam ak père ba ñoom ñëpp billaay ak sama grand papa Sow. am na solo promoteur bi tami waaw. ñu ngi koy ñaanal bu baax jëm production waaw billaay ñu ngi koy ñaanal bu baax. waaw barke Serigne Touba waaw. ak sama grand moom si maa koy nuyu bu baax kooku moom wallaay azim aw ma fayam yàlla yàlla rek moo ko mën a fay. moom sax xanaa li waaw aw ma fayam quoi. waaw mooy nii sama ginnaaw. waaw mooy borom Suisse. mooy borom Suisse moom moom aw ma fayam wallaay azim billaa wallaay ak famille am yëpp famille Diallo Kounda yëpp waa Ngaabu ñëpp maa leen di nuyu barki Serigne Touba. mais El Hadj Thiam kenn du yow nag barki yàlla sama l'international yi ku si mel ni Pathé Ciss. Amath Diédhiou xam ma ñu leen di woo bu baax a baax waaw ñoom gis na lu ñuy taxawoo quoi. di ko teg si loxo lo barke ci barke yalla am na solo mais ETDR nak gars bu len ko fatte mom mo sponsoriser sa jamaïcain son yi ngeen sol ni, ETDR bu kanji production la kon mom tamit kanji ñu ngi koy wax mention spéciale wax deug yalla mu ngi japp si lamb bu baax a baax a baax kon gay yi dig daje bi kañ la jam Dimas. bes doxatu fi inshallah rabbi waaw ginaaw suba wala dimas bi di ñëw ñëw ginnaaw suba kon gars yi incha allah ci arène nationale yàlla nañ ko fekkee te tal ko gars yi ba beneen yoon incha allahu rabbi aca rafet na